itam tey li ñuy fi dajaloon mooy euh, ubbiteeg makkaan mi nga xam ne bii moom la euh, SICO SICO maanaam benn organisation la boo xam ne président daf ko deg ci suufu kilifteefu ministère de l'intérieur muy lëkkale mbooleem ñëpp ñi nga xam ne war nañ mën a euh, intervenir bu fekkente ne acte terrorisme am na ci ci ci réew mi muy police muy gendarmerie muy armée muy sapeur pompier euh, muy santé ak euh, même justice parce que ont fait lu intervenir donc nous gendarmerie remercier le général Sène Euh, joxoon batiment bi ñu àggale ko moom lañ doon inauguré tey muy foo xam ne fii tey ñoom ñëpp mën nañ fi daje euh, su problème amee bu problème am mu sax mën nañ fi liggéey problème amee ñu mën fi daje xool yan décision la ñuy jël ci ci ci ci benn bërëb bi muy muy lu am solo donc euh, ñu leen ci remercier bu baax a baax donc tey moo doon solo si ndaje mi sikkoo nag dafa am solo ndaxte kenn ku ne xam na tey fi terrorisme toll ci àdduna te amul benn réew boo xam ne bii nga taxaw ne euh, du yegg ci man amul euh, réew yi gën a développé ba ci nga xam ne peut-être seen koom demeewul noonu sax gis nga ma ngi fay am terrorisme donc kenn ku ci nekk da ngay préparer rek mu am nag ñaari euh, comportement benn bu fekkente ne affaire bi ñëwagul parce que président de la république bi mu xamee ne affaire bi mi ngi am enjeu ci la créé cadre bi en 2016 donc jox leen jox police jox gendarmerie jox armée ay moyens

Euh, Léopold Sédar Senghor def nañ également ben exercice à au niveau de de de de l'hôtel je sais plus quel hôtel encore def nañ également à Saint-Louis euh, exercice pour que nous xool à chaque fois rek lu même leen euh, rapidité bi nga xam force yi mën nañ ko am pour intervenir donc là aussi moi attitude bi ñu war a am di préparer toujours pour que bu mbir mi amé bu mbir mi amé nak yalla def na peut-être ba légui mbir mi amagul Sénégal en tout cas ñi ngi préparer di entraîner suñu suñu suñu gars yi pour que bu mbir mi amé ñu mëna faire face lépp li nga xamné li da fay jëm ci ci ci ci ci maanaam duñ def programme spécial rek ne lii pour antiterrorisme c'est-à-dire que tey jii bu fekkente ne acte am na euh, dañuy jël soxla bu fekkee dafa intervenir ci zone police police mooy njëkk a intervenir ak i jumtuwaayam bu fekkee dafa intervenir ci zone gendarmerie gendarmerie mooy njëkk a ñëw ci ay jumtuwaayam police ak gendarmerie nag ñoom ñooy ñii njëkk a intervenir bu intervention bi demoon ba xaw a jaaxle peut-être dans ce cas mën na appel force spéciale armée mais il y a déjà ligne à peut-être euh, investissement yi président de façon générale euh, pour force pour hein, depuis depuis depuis 2012 il y faire face. merci beaucoup